xam-xamam màcc na ci wàllu koom-koom mu jiite nag bureau prospective économique ñu ñu gis ni aussi ci mbas mi liggéey nañ ci liggéey bu am solo ci wàllu statistique parce que lu am solo la ngir dimbali kilifa yi ñu xool naka leen def ngir xeex ko chiffre yi mujj am nag ci datu démb bi mu barak 34 724 cas positifs depuis bi mbas mi duggee Sénégal ba léegi ñu ne ñi nga xamante ni ñoo nekk sous traitement aussi on a vu que ah 29 161 guéris 46 000 690 ñi ñàkk seen bakkan di 880 daanaka kon ñaar fukki nit ñoo tere rek ñu egg ci 900 morts yi fii ci Sénégal xayma woon ngeen chiffre yi gaaw na gaawut wala fi mu toll jàpp nga ne ci yoon wu baax la jaaroon. waaw xam nga jërëjëf mbas mi am na fi at léegi euh, biñ gisee nag dafa am yoon yu bari yu mu jaar. Mhm. tàmbali woon na am na ñaari moment yoo xam ne. foogoon nañ ne mbas mi day jóge senegal ñaar benn bi mooy bi mu njëkkee am weer boori le 5 avril 2000 muy daaw demoon nañ ba daanaka kenn faatootul ku mu laal rek nga daal di wér cas yi ñu daan déclaré demoon na ba tuuti ay juróom la daan doon euh, wala lu gën a yees loolu mu jékki-jékki euh, li ñuy wax cas communautaire daal di feeñ bi mu feeñee xam nga cas communautaire moom mooy koo xam ne feebar bi dal na ko te xamul fu mu ko jëlee kooku suñ ko gaawul gis da koy wàll ñeneen dana ko wàll ñu mu dëkkal dana ko wàll ñeneen ñum mën a liggéeyool wala sax mën naa jël oto wàll ko ñi mu ñi mu ba tax na euh, gouvernement bi boo xoolee daaw stratégie mi yëpp mooy gaaw a gis cas communautaire yi après topp jéem a jël ka contact yi yi nga xam ne ñëpp jege na leen tàmbalee ci këram ci liggéeyukaayam ak yooyu euh, après yóbbu leen otel isolé leen euh, ba bi ñu defee loolu gis nga ne bu pare nag dañ cee boole woon tëj euh, tukki yi surtout ñu daan jóge Dakar ñu mën a waaw ak yenn région yi bi ñu ko defee tamit tëj école yi ñu ne tamit marché yi dafa am jour yi koy fay am na tamit euh, euh, heure yoo xam ne su fa jotee dañuy dañu war a tëj loolu yëpp indi woon na cas yi tàmbali wàññeeku soo xoolee mois de mai ci digg bi tàmbali woon na wàññeeku loolu comme yaa ngi doon wax pic foofu amoon na pic foofu la pic ba nekkoon bu njëkk bi voilà foofu la amoon soo xoolee dafa tàmbali wàññeeku tàmbali wàññiku donte kore gi ñëw na mais kore gi taxul woon ñu ubbi transport bi ñu dem ba fin du mois de mais début juin nag ci lañ tàmbali ubbi euh, ubbi transport yi ubbi école yi euh, nga gis kaa yi tàmbaliwaat yokk parce que mbas mi bu la ci lépp nax mbas mi su nit ñi gënee jege euh, duggante rek day gën a yokk ndax loo xam ne dañ koy wàllante la donc su nit ñi amee li ñuy wax sorente rek mbas mi du am fu mu jaar Euh, donc bi ñu ubbee dafa daal di yokk bi mu yokkoo euh, ñi ci ñàkk seen bakkan aussi daal di yokk ndax fu mu yokkoo rek ñaar yi ñoo ànd ndax su su fukk amee xëy na kenn ci kenn wala ñaar ñàkk ci seen bakkan su téeméer amee fukk lay doon euh, wala wala su fe su téeméer ñaar fukk lay doon wala fukk donc loolu mooy mbir mi mooy nañu fexe ba ñi muy dal ñu gën a tuuti Euh, test yi tamit euh, gouvernement bi da doon def di test cas communautaire di test tamit cas contact mooy ñi dend ak moom waaye gis nga bi ñu ñëwee juillet dafa wax ñi nga xam ne feebar bi solal na leen ñooñ rek wala boog mën na leen a solal mooy mag ñi wala ñu am yenn feebar yi ñooñu rek lañuy ñuy ñu wàññi daal di ñu wàññi test yi waaye taxul même biñ ko wàññee cas yi dafa continuer di yokk moo lay won ne suñ testé woon ñëpp lii feeñ ci cas dina ëpp li ñu déclaré ci cas ndax xam nga cas moom euh, yi ñu lay wax ni bis bu ne jàppal ne li ñu li testé rek la génn mais suñu ñu yokkoon testé euh, xëy na ñaar wala ñett yu ko ëpp li ñuy génne ci cas euh, day gën a bari. maanaam li nëbbu waaw li nëbbu xaw ma ba xam moo. non c'est sûr que moo ëpp parce que mais nag. Euh, mën na nekk yi feeñul yëpp li ci gën a bari jàppal ne cas bu dul sonal nit ki la. waaye nag mën na ko wàll keneen foofu la danger bi nekk. parce que cas communautaire li koy feeñal mooy ñooñu ñu testé wul ñu dem soit ñoom ñu dem ba feebar bi sonal leen wala ñu dem wàll ko koo xam ne feebar bi da koy sonal parce que en nit ñi suñ demee ba sonn la dem testé wu. Euh, donc loolu euh, bi ñu ko defee mois d' août. tàmbali woon na wàññeeku tamit mu dem ba novembre novembre euh, ay le 3 novembre wala le 8 novembre foofu mooy ñaareelu yaakaar bi ñu amoon ne mbasa ngi jóge Sénégal daanañ dem benn bis ay ñetti kaa la ñuy am euh, semaine huit moo mi novembre benn nit moo ñàkk. mooy jamonoy màggal ga ak yooyu. waaw màggal gi moom man dama ci tey. parce que mënu ma déclarer ne def nañ màggal mooy amul amul benn conséquence ndax. amul benn jeexantal ndax euh, ci au niveau sanitaire munoo xool rek ci ñaari ay bis foo nga xool lu gën a yaatu loolu ba tax na li gën a wóor comme leerul mooy bañ cee tudd euh, dara daal wax ne rek gis nañ ne cas yi mois de novembre gis nañ ne dafa tàmbali yokkuwaat euh, décembre accès accéléré wu bi mu ñëwee janvier gën a tar mhm. ci lañ defee couvre feu bi ndax dama lay defal bilan bu rapide comme ñi ngi ci un ci euh, waaye nag lii ma leen di wax loo xam ne lu mën a tey xel la mooy ne mi ngi yokk waaye vitesse bi wàññeeku na xam nga mën nga yor oto euh, nga dawal 110 110 xëy na mooy li nga xam ne soo nekkee ci autoroute moom lañ la may mën nga teggi sa tànk ngay dawal toujours 90 yaa ngi avancé waaye vitesse bi wàññeeku na donc actuellement ñun li ñu constaté ci suñu liggéey mooy mi ngi yokk waaye tar bi wàññeeku na loolu nag feeñ na ci ñun euh, xay xayma yi ñuy def di ko génnee waaye euh, ci ñu sunu sunu liggéey tamit wane na ne du couvre-feu bi du couvre-feu bi xëy na jariñ na tuuti rek ci région Dakar waaye li ko gën a baril mooy euh, tàngaay bi ak seddaay bi Ah, dafa tar bi ngay wax lan la sévérité bi la maanaam ci ni muy sonale nit ni muy rey ay nit wala ci kaay ni muy. ci kaay yi yokk la d'accord ci kaay yi mais nee naa la fu kaay yi wàññeekoo ci fu kaay yi wàññeekoo day am njeexital tamit ci euh, ñi ci ñàkk seen bakkan dañuy wàññeeku aussi cas grave yi aussi dañuy wàññeeku donc ñett yëpp ñoo ànd ñi ciy wér aussi. Euh, day day day wàññeeku su fekkee ne ñi ci ñi ci ñi muy dal dañuy wàññeeku donc euh, li ñuy ñaan mooy dynamique boobu xëy na suñu continuer ci weer wi di ñëw ñun ci suñu xalaat euh, tàngaay bi dana ci am solo ndax daf nañ ci ay xayma yoo xam ne scientifiquement lañ ko def gis nañ ne fu mu gën a tàngee moom la kaay di gën a wàññeeku donc lu mu gën a sedd moom la cas di gën a bari ñaareel ba suñu ubbee frontières yi tamit ba jaxasoo bi gën a bari kooku aussi gis nañ ne day yokkukaay donc te fi ñu toll nii xam nga Europe dafa tëju. kenn mënatu faa jóge donc loolu aussi mën na tax kaay wàññeeku. Euh, donc ñaari yooyu mooy yi nga xam ne suñ deful woon dara sax dana wàññikaay kaay. couvre-feu bi dana ci jëriñ mais li muy jëriñ ci pour ñun bëriwul ndax ak guddi rek la. te gis nga yeneen yi muy indi. li ni xayma bu njëkk ba la boo fekk ne variant anglais bi ñëwagul woon feeñagul woon ak ak ak bi nga xam moom mooy bu sud africain ce que aujourd'hui tàngoor bi mën na agir ci li ni moom mooy les variants là. bon ñun euh, li mu li ñu gëm ñun mooy waa Sénégal ak Afrique euh, ñi nga xam ne dañ daan naan ni waa parce que xam nga dëkk bu ne ak ak situation Afrique du Sud ak Sénégal yemuñu donte ñun ñëpp nit ñu ñuul lañ waaye xëy na ñun ni ñu ndax ñoom ñoo ñu gën a sedd te xam nga si biiru fi gën a tàng lay gën a nekk. ñun ñoo gën a gën a nekk fu tàng ñun ñii ñëpp bañ nekkee xale dañ daan naan niwaakin kooku nag euh, xëy na kadolo bu ñu indil euh, sénégalais yi tey képp ku daan naan niwaakin wala boog nga daan si mbas mi. mën na laa dal su fekkul nga feebar yenn feebar yi mën na laa bañ a sonal donc ñun loolu xayal wala doo xam ne dañ ko def ci àdduna bi yëpp ñu gis ne dëkk yi daan am sibiru wala dëkk yi am sibiru ñoom la mbas mi gën a bañ a sonal doonte dana fa am moo tax variant boobu ngay wax ñun ragaluñ euh, man na baril kaa yi waaye gëm nañ ne ñun du du gën a yokk sévérité bi ndax euh, ñun fii dafa am ñaari mbir yu tax yàlla dimbali ñu ci mbas mi ci ni fiy faat ak yooyu parce que ay Europe wala Amérique ñu ëpp lam fay faat donte da nga dégg ñuy wax taux de létalité waaye suñ la waxee ne téeméer yu ne ñaar ak genn wàll ñoo ci ñekk seen bakkan jàppal ne soo testé woon ñi nga testé wul mm-hmm. dana wàññeeku ba nekk kenn rek mm-hmm. ndax erreur bi foofu la nekk su fekkee ne euh, li nga gis bëriwul euh, forcément day day day yokk euh, mmh. ah, ah, donc li may li may beneen li ñu li ñu may doole aussi mooy xale yi c'est-à-dire dëkk bu la gën a xale moo la gën a mën a supporter mbas donc Afrique ak Sénégal loolu moo ko may doole vaccin bi nag mi ngi ñëw ñi ngi ñaan yàlla mu dolli ci protection waaye tamit vaccin bi na ko nit ñi xam vacciné wu du jàggee ne da nga vacciné wu rek mënoo am Covid. Mhm. vaccin day tax Covid su ñëwee du la sonal. Euh, jàppal loolu mais nag du jaagee ne ku am vaccin rek dootoo am Covid. donc loolu lu leeral waaw bu ñu bu ñu vacciné woo tamit du tere ñu wéy di matal mesure barrière yi mais bu ñu taxawee tuuti rek ci wàllu koom-koom ak Covid li mu jur ci ay jafe-jafe ñu taxaw déjà si le cas Sénégal ndax gis nañu gëstu boo xam ne xëy na yéen def ngeen ko euh, ngeen ne def naa ci grippe espagnole bi 1918 ngeen gëj a gis xëy na lu xaw a mel nii ci diir bu gàtt mu songee nii yëkkatee euh, àdduna tëral ko ci suuf tey boo doon xayma bés yu njëkk Covid wala boog ñetti weeru njëkk Covid lu mu def ci suñu économie bu ñu xoolee les dix dernières années impact bi. waaw li ñu gis mooy andi na fi loo xam ne xëy na danga nga yéeg euh, fanwe euh, ñeent fukki at. ci ginnaaw ci ginnaaw. soo demee ay 1981 ci la Sénégal économie woom daanoo woon noonu. lu ko juróon jamonoy sécheresse bi la tombé. loolu waaw dafa amoon sécheresse ak yu mel noonu. ba tax na bi mbas mi ñëwee daaw dañoo tëj yëpp nee nañ tukki amatul wala boog parce que Dakar soo génnee mbay mi ak napp gi daanaka lépp fi la concentré soo nee waa dakaar dootu leen dem ci région yi région yi du ngeen ñëw Dakar dafa tëj lu bari marché yi aussi usines yu bari dañoo tëj hôtel yi tëj. donc loolu dafa tax koom bi ci boppam dafa ndërmeel woon euh, ñu bari ñàkk seen liggéey ñu bari seen ndóol yokk loolu moo tax sax gouvernement bi ubbiwaat koom bi euh, ndax daaw maa ngi lay wax léegi ne biñ ko ubbee kaay dafa tàmbali yokk waaye Euh, yenn saa yi moom da ngay am ñaari jàngoro am nga jàngoro boo xam ne mooy Covid bi waaye am nga jàngoro ndóol euh, ñaari souvent choisir ci moo tax gouvernement bi ne nañ jéem a ubbi rek te jéem a dandante euh, pour pour mën a bañ a kii te gis nañ ne bi ñu ubbee aussi koom bi dafa tàmbaliwaat doxaat te ba situation bi ci lañ nekk nii moo tax ma ne ren mooy tane daaw ndax daaw Euh, li ñu jàpp mooy daanaka koom bi yokkuwul su dee yokk tamit tuuti lay doon biñ ko saytoo ba pare ren moom yaakaar nañ ne téeméer boo jël xëy na ñu am juróom mën nañ ko bañ a am nag waaye danañ mooy gën daaw moom euh, xam nga danañ wax su naree mel ne euh, su naree mel ne daaw ren moom mooy gën incha allah jàpp nañ ne daal lum tuuti tuuti xëy na danañ am ñeent ci téeméer bu ne waaye gouvernement bi mi ngi yaakaar am juróom ci téeméer bu ne. loolu lan la ci taux de croissance. ci de croissance ñun euh, daf nañ ci saytu mooy ci téere bi ma la ma la indil téeméer bi téere bi sax dañ ko def ci xool ndax doon nga wax léegi manuel ci mbas amul mooy kenn mënu la wax mbas soo jaaree ci yoon wii rek da nga ci génn. Mhm. donte sax tàmbali nañ am ci yoo xam ne xëy na mu ngi nekk élément yoo xam ne. man euh, constituer manuel waaye nag incertitude bi nga wax mooy liñ ci liñ xamul ci mbas mi moo ëpp liñ xam ci mbas mi euh, ñun nag dañ koo def ci li ñuy wax émergence économique mooy nan lañ mën a fexe ba réew mi naat ak réew yi ci àdduna bi yëpp soo xoolee ci ci jeexantalu euh, téere bi xool nañ ci mbas mi ak jeexanta moom ci économie. piste yu njëkk yi lan la. liñ ci gis nañ na ñetti yoon daal mën naa am. benn bi xam nga dañ daan wax Sénégal émergent mbas mi mën na mëlal projet boobu ba daanaka am euh, lu ñuy sànni fu soree sori la ndax dana dana ñu daaneel daaneel boo xam ne pour jógaat ci bon 2035 sax man saytu yi ma daan def pour man sori na li ñuy viser 2035 man ci samay saytu mënoon nañ ko am 2028 mm. ci samay saytu ndax mm. xam nga scientifique ni muy fonctionner yëmul ak langage politique scientifique da ngay da ngay saytu jël ay paramètres ci té téere bi def naa ko soo ko ubbee da ko gis maa ngi may liggéeyal dalay wan dëkk bu nekk ak situation bii mu nekk année bii su fekkee continuer na ni mu mel wala mu amélioré lii ne la année bii dana agsi fii donc fii wane woon na 2028 Sénégal mënoon na nekk pays émergent euh, ñaareel bi mooy euh, moo doon su fekkee ne mbas mi sonal lu ñu lool moom dañ ciy gaaw a génn teguwaat ci kaw yoon xëy na 2028 bi léegi danañ ko repousser ba 2030 parce que perte nañ ñaari at yoo xam ne niñ daan demee duñ mais à partir de 2022 économie bay day delluwaat ci yoon yu mu ne woon. mais est-ce que jël ngeen paramètre environnement global. parce que nekkatul ñun rek. xam nga ne nga. waaw moo tax trois scénario yi bu ci génnee te situation économie africain yi. économie adduna bi lu ñu fay jëlee aussi. moo tax ñetti yoon yi mu la wax yoon bu ne dafay tenir compte ci environnement mondial mooy àdduna bi nu mu demee. Hmm. Afrique nu mu demee. yoon wi gën ci ñun mooy àdduna bi mbas mi jeex fi ñu delluwaat di lëkkaloonte ni dëkk yi daan liggéeyante ñu liggéey ko Afrique lépp daal di ubbeeku tamit hmm. Sénégal tamit. teguwaat ci yoonu liggéey loolu mooy li ñuy may 2030 waxuma 2035 2030 ñu nekk pays émergent beneen yoon bi nga xam ne nag moo yées moo doon mbas mi euh, génn ndànk ci àdduna bi euh, ñun ñi mu sonal ñu dant vaccin bi aussi euh, du gaawee noonu ba donc loolu su ko defee économie bi ci boppam day daal di ndërmeel kooku moom daanakaam xamoo kañ ngay ngay jógaat ci mbir yi am na nag yoon bu digg doomu boo xam ne melul ne bee melul ne bee mi ngi ci digg bi xëy na boobu soo doon nekk ku prudent boobu ngay jàpp ne moo gën a am chance booba ngay gis leneen bis boo gisee ne nag mbas mi génn na nga dellu ci scénario bi gën a baax Mhm. est-ce que est-ce que est-ce que articulation yi ñuy def tey. gën nañ ci programme de résilience économique sociale ñu ngi ci PAP 2A bi nga xam ne mooy prolongement wu. plan Sénégal émergent boobu nga wax yow ci sa gëstu bi nga tënk fii parce que ñu ngi koy door a gis jotuñu ko mhm. gëstu. recoupé na recoupé na incha allah <laughs> danañ ko gëstu te danañ ko waxtaanee waat bu soobee yàlla mhm. est-ce que am na lu mu recoupé PAP 2A bi. waaw xam nga wax naa la ñetti yoon am. jàppal ne PAP 2A mooy yoon wu njëkk wi la ne. moom mooy binaat soo xoolee ñun bi ñuy génnee téere bi biñ koy pare ba koy yóbbu ci librairie Pape Deza génnagul waaye chiffres yi ñu joxe ñun ne mooy bii tegaat Sénégal ci kaw yoonu émergence moo c'est les mêmes chiffres que deux Deza mooy en moyenne 6 pour cent de taux de croissance 2018 ba 2023 ñun soo xoolee mooy suñu scénario le plus favorable. Astou ah, est-ce que du ma këfaat benn rek. bu baax su ma wax yi. may ma tuddee ndax yéen ngi wax ay ay Pape 2 <laughs> xam nga sama maam ma toog Malicounda boo ko toogee fi naan ko ay ay Pape 2A di ko wax ay <laughs> euh, yenn termes yoo xam ne tey. <laughs> Sénégal ci lan la mën a sukkaliku ngir génn ci jafe-jafe yi mi mu nekk. ci mbay la ñuy suqaliku euh, ci secteur informel la ñuy suqaliku. ci élevage tey euh, fan ma la ci lan la ñu mën a. mooy lan mooy suñu ñu ngi ci diggu géej gi lap nañu ci lan la mën a jàpp tey ba mën a euh, delluwaat ci boor tefes gi. xam nga mbay mi ci boppam xëy na dangaa jege géej moo tax nga wax tefes danaa ñëw ci mbay ci xam nga mbay ci boppam mën nañoo indil lu ñu yóbbu kanam ndax mbay jàppal na ñun li ñu am ci suuf. Hmm. tuuti lañ ciy bay. ñaata weer la ñuy bay léegi sii yaa ngi ko doon wax soo jëlee lu mat pomme de terre nga bay ko ñetti weer bayatoo mënoon nañ bay daanaka at mi yëpp soo demee Inde mm-hmm. Inde seen suuf daanaka bàyyiwuñ dara lépp la ñuy bay at mi yëpp daanaka dañ koy bay suñ bayee lii parce que suuf si xëy na yenn saa yi dana jar noppal waaye ay ay ay weer wala yooyu waaye am nga mën nga fexe ba loo ba yow weer wu ne yaa ngi bay waaye nag loolu day laaj ay jumtukaay c'est-à-dire ñun euh, foofu il faut ñu takkuwaat c'est-à-dire euh, euh, ni ñu ko jàppee daal des na mooy mbay mi niñ ci war a jóge parce que mbay warul nekk loo xam ne dangay bay ba pare di am ay ñaar fukki junni mhm. fanweeri junni xam ne soo fayee say bor daanaka mhm. dara du la des baykat bii bay ndax man ñii di wax ak yow nee nga Malicounda nga dëkk mi njàmbur laa dëkk man ci sama bopp damay bay ren jii bay naa ñebbe donc mbay xam naa xam naa luy bay te ñi mu ay baykat rek laa wër war nañoo fexe ba baykat bi bu mu man di doon mu nekk millionaire te lu mën a nekk la euh, jox ko matériel bu war fexe tamit ba li muy bay am valeur xam nga loolu aussi suñ problème la mhm. soo jëloon par exemple ab tool soo fa bayee gerte soo bayee ba pare ci benn hectare maximum mënoo fa génnee lu ëpp une tonne hmm. maximum di gën a bari cinq cent kilos six cent kilos huit cent kilos une tonne une tonne bi soo paree soo ci génnee semence yi nga ci def engrais yi ciy def une gerte lu muy jar deux cent dix mille hmm. te booba sax soo paree nga génnee ci say engrais say say frais li lay dese du ëpp cent moo taxoon moo wax la cent mille léegi. un hectare boobu soo ko defoon li ñuy wax xaalitu tubaab mën nga ci am dix tonnes. maanaam diversifié trente tonnes mm-hmm. yaatal ko. xam nga même soo ko jaayee trois cent francs ko jënd si sa tool am nga neuf millions. Mm-hmm. comparé neuf millions. ak deux cent dix mille euh, ensuite euh, am na mbay yoo xam ne aussi. soo gisee dëkk mel ne Malaisie foofu lañ ñu mën a ñun ñoom seen mbay par exemple dañoo jël garab yoo xam ne soo ko bayee ëllëg du jar nga jëndaat semence par exemple soo amoon lu ñuy wax euh, huile de palm xam nga mi ngi jóge ci mhm. garab googu garab googu ñuy defaree tiir diwu tiir mhm. yooyu su su doy garab mhm. garab jëratul semence soo ko xasee bay benn yoon soo jëlee lu mel ne ñaam bi tamit da ngay pare daggaat dugalaat mm. xalaat bi foofu la war a nekk mooy ñun defaguñ li ñuy wax suñu révolution agricole te mbay mooy li nga xam ne moo la mën a may mm. réew mi di dem nit ñi di yëkkati ko parce que jàppal nañu ëpp ci nit ñi ci àll bi lañ nekk soo demee ci sàmm gi nga def même chose nga dem ci napp gi mm. def même chose fexe ba ba nappkat yi mën a dem ba ca digg géej gi parce que fi ñu toll nii suñu nappkat yi amuñu matériel européens yi ñooy obligé ñëw indi seen bateau jën yi gën a baax ñu jëli ko mais ñun mënoon nañu fexe ba Europe ñu lëkkalook ñoom espagnol yi ñoom dañu dañu am doole ci napp ñu fexe ñu jox ñu bateau yooyu nga xam ne ñu formé ci suñu nappkat yi ñuy mën a dem ba ba digg géej gi donc secteur boo mën di jël industrie dama la ci jox benn exemple pour jeexale foofu Euh, Covid bi ñàkk yi ñuy def nii ñàkk yi ñuy def nii ci Covid bi. Mhm. seringue yi ñuy jël di ko defee. Mhm. mais mënoon nañ ko liggéey Sénégal. <laughs> man mii fi ñu toll nii man naa dem Inde wala Chine indil la matériel bi suba. te ko lu yomba defar la donc lu tax ñuy jéggaani lu ne donc mbir mi daal yaakaar naa ne ñun da jàngat ci tiila ci ay leçons. c'est ça ñun daal ñun ñoo suñu nee naa la kundóol ci àdduna bi fi ñu toll. yaa ko bëgg yaa ko teg sa bopp merci beaucoup euh, sëñ Bilo jërëjëf borom euh, borom <laughs> borom borom Serigne Louga gaa yaa ngi xëccoo buñaa bi après ma kii ko euh, plouf pour aller plus ah. vite 3 fois 9 27 ginnaaw allo présidence lay nekk.